bi nu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal ñu koy joxante ci sunu biir muy jàmm yàlla yàlla na bari ci yéen nekk ci yéen delluwaat si ñun tam jàpp naa ni kenn ku ci ne rek yoreel naa la àq kon ginnaaw bi nga xam ne jóge nañu ci weer sell muy weeru Ramadan. muy weeru jaamu yàlla ñu ñaan yàlla suñu borom lépp loo xam ne def nañu ko ci ci ay xeetu jaamu yàlla nañu ko yàlla nangul lépp luñ ci def ci ay tooñ yàlla mooy jéggal yàlla nañ yàlla jéggal waaye yéen ñoo ngi leen di jéggalu ci lu nu yëg ak lu ñu yëgul ndax ñun ñi nga xam ne yàlla danoon natu ñuy ay waxkat te xamuñu dara teg àddina goo xam ne kenn ku ci nekk sa nopp nga yore mu am liggéey taataan di ko déglu am na ñoo xam ne fu nu dégg wax dañuy segg lu baax li lu ci safaanu ñu teg ko nele loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo leen di seede ci seen moroomu julit dee leen di seede li baax li ngeen dégg ci moom loo leen xam ci moom ci lu safaan ngeen noppee ko ndax yàlla nu gën a xam ñépp kon ñoo ngi baalu àq ñépp ci wax yu ñuy wax te mu am ñoo xam ne naqari na leen ci wax yu ñuy wax te mu am ñi am na neex na leen amaana ñu génn dégg kii wax lu safaanu ci ñun mu doon lu leen naqari ba mu ba ñu mën ci am ay coow sax kon cofeel googu kenn ku ci ne rek ñoo ngi la koy jéggulu waaye tam nooneel googu kenn ku ci ne rek ñoo ngi la ciy jéggulu ndax yàlla suñu borom moo defar ku ne ginnaaw nag yonent bi sallallahu alayhi moo fi gën te lu ne dégg na ko lu ne def nañ ko ko te ci biir mbokkam mbokk jullit yi ci mbokk yi sax ci sunu biir la ñuy gën a ŋaññante di waxante lu bon ndax loolu cosaan la ci lislaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jëkke Quraysh yu ne loo nañ ko sallallahu alayhi sallam lu ne gis na ko waaye terewul ni yàlla suñu borom dëgg ku ci ne da nga dégg lu ne Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul di jëwriñu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mais nooneel moo ko génnee ci réewam yóbbu ko ci réew yu sori yi te xamuñu woon loolee ñu daan def dañ daan dimbali ci mission am waay la woon ngir moom mu dem liggéeyal yàlla liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yàlla suñu borom fay ko lu mu doon tey ñoom ñooñee su fekkoon ne xamoon nanu ni fii la sëriñ bi di mujj duñ ko def. kon mbokk jullit ci ñoo ngi baalu ak ñépp ndax yoreel nañ ñëpp àq wax lu naqari la waaye nag noppi gi koy dégg moo gën a naqari kon ñoo ngi sàkku ci kenn ku ci nekk la ngay dégg yàlla na mu doon lu luy jëriñ waaye lépp loo xam ne du safaan ñoo ngi koy jéggulu sant nañ yàlla suñu borom nag bi mu ñu mayee ba ñu génn ci weer wi ak jàmm ñoo ngi ziar mbokku internet yëpp tey jéggulu ci gëj a gisante bi ndax ginnaaw julli bi ba léegi dañoo toogul woon loolu rek a ko waral waaye ginnaaw yàlla suñu borom dogal na nag reprendre nañ émission bi noogi ngi ziar tey jéggalu ci intermittence bi amoon ci diggante bi di ñaan yàlla suñu borom yàlla nañ yàlla defal ak juboo ndax julit dafa war di yéene moroomam lu baax nanu bàyyi di ŋàññante nanu bàyyi di muy ayibug sunu moroomu julit julit dafay jéggale dafay jéllale julit dafay feneti dégg wax ju dul noonu sax nga mel ni ku ko déggul di ko taaral waaye li ne ci àddina gi métti na lool kenn ku ci ne rek yaa ngi xool sa moroomu julit di xool fu muy defee fay wala erreur ba nga am li nga ko ŋaññi kenn gisatul lu baax lu nit di def ñi ci gën a bëri ci ñun jàpp nañu koo gis muy jéem a góorgóorlu ci yoon gu baax sax jàpp nga ne intérêt tax mu di ko def nanu dimbalante te yërëmante te jàppalante ndax weer wi ñu génn weer woow la weeru yërmande la solidarité dimbalante jàppalante fraternité te monde bi mu ngi dund dund goo xam ne bu nu delluwaatul ci valeur yi def doomu aadama dana métti lool maanaam booloowaat nekkaat benn booloowaat bëggante te loolu yàlla sunu borom wax na ko ci alxuraanu karim inna allaha yuhibbu alladina yuxaatiluuna fihi sabilillah safan kal naum bunyaanun marsuusun ne na yàlla sunu borom de moom bëgg na ay julit yu mbokkoo mbokkoo nekk benn julit yooyu nag jubal te dox te yàlla rek a tax jàppalante ci seen biir te yàlla rek tax nañuy dimbalante di bëggante sunu biir ndax loolu rek moom moo ñuy dimbali booloo nekk benn lu nu mën a song rek daanu ko daan coono gi daj yi réew daj yëpp mooy féewaloo gi nu féewaloo mooy le fait que kenn bëggul sa morom kenn yéenewul sa morom lu baax waaye waaye kon lii yàlla wax na ko ba pare kon lu war suñu biir mooy nanu yéenante lu baax nanu bëggante nanu jàppalante nanu yërëmante ko leen gis muy gorlu ci l'islam dimbali leen ko jàppale leen ko encourager leen ko way bu leen ko décourager wa l'islam da ngay gis ni ñi di gorlu ci lu bax di nab na pourtant bu nekkoon ci lu bon dañ koy félicité diko encourager diko di diko jox sax xaalis ñaata nit ñoo yore ño nek ci tiaxan te doon ay milliardaire ndax tiaxan kese xolal nit ñi nek ci deug di daj lu ne l'islam bo ci nekkee di nab na bi di góorgóorlu mbokk jullit yi na yéme na kon nañu dimbalante ci sunu biir loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ji mu xam loolee yàlla suñu borom wax moo tax mu ne al muslimu lil muslimina kal bunyamin nee na julit bu jëmee ci moroomu julitam ñoo ngi mel ni ñaari briques yu ñu kole te dootuñ tàggoo mbokk yi loolu moo ñu boole ñun ay mbokk lañu ku ci dee woon tey balaa ñoo laaj laajte benn mbokk mbokk julit la ñuy laajte ndax da ngaa bëgg ñu amul kenn ci ñun koo xam ne bu fi jógee rek da ngaa bëgg ñu safaanoo ñu denc la sa borom ci ni ci ni nga nekk kon nañu góorgóorlu waat développer jàppalante bi fraternité bi solidarité bi nekk benn di baalante di jégalante di comprendante tey muñalante ci lu bëri nañu bàyyi kiñaan bi nañu bàyyi jalousie bi nekk sunu biir nañu bàyyi soxorante bi nekk ci sunu biir te ñu booloo nekk benn loolu buñ ko defoon ennemi bu moo sa song diine l'islam daan la mën a daan mais saabatul kiraam yi loolu la ñu rayoon ku ne dañoo bëggante woon amul kenn ku ciy xool ay bu jàmbur moroomam amul kenn koo xam ne yaa ngi seet ndax sa morom lii ak lii ak lii kenn ku ci rek lépp loolu ko mos a dégg ci sa morom rek da jàpp ni loolu mooy dégg boo ko def bu fekkee lu baax la lépp loo dégg ci moom lu safaanu rek jàpp nga ni loolu mënul ne ndax kooku du ko def kon nanu dundaat te suñu maam Serigne waa daf ñu doon ne saaba yi ñoom ñooy seen baay ci diine kon nanu jëlaat saaba yi def leen ay royuwaay xoolaat ñooñu nu ñu ne bés bu islam tolloo foofu tolluwaat ci booloo ci solidarité ci fraternité lépp lu nu ñaan yàlla yàlla su borom dina ko nangu boo gisee l'islam nekk fi nekk diine bu gën alxuraan nekk téere bu gën di waxu yàlla te pourtant ñu ciy ñaan chaque jour te doo leen gis mukk lu soppee c'est parce que ñun dañoo booloowul suñu xol yi nekkuñu benn yéenante lu baax kenn ku ci rek yaa ngi xool sa ëyi bu moroom gisoo mukk ñi nekk ñu ñun ay nit ñu ñuul lañu duñu ay duñu ay arab ay nit ñu ñuul lañu te kenn ku ci nekk ci ñun rek ci waxinam ak ci jëfinam foofu rek muy des ay ay ay ay ay ferñeent yoo xam ne dafay wane ni kat kii làkk bi la kii làkk bi la ñun séeréer lañu bu nuy làkk wolof di nga sentir ni kii séeréer la nga xam ni kii wolofam taxul mu leer noonu kon noonu la demee ci làkk boo mën a làkk boo jël nañuy jéggalante baal nañ àq yëpp ñoo ñaan ñëpp baal ñu àq ba ajuma bi di ñëw insha allahu rabbi ci seen émission xulwatul juma ak seen mbokk imam Mouhamed Ndiaye mu Serigne Saliou fii ci juma Grand Médine والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته